mbir mu doy waar métti te tiis moom moo xew ci dëkk bu sell bi ci Touba ca quartier Daaru Xuddoos fa ñuy woowee tokkoor ba foofule nag ñoo fekk ci benn foos ab xale bu góor boo xam ne nii dafa ñàkk bakkanam ba jamono ji nag ab néewam daanaka kenn mënu koo xàmmee ndax dafa yàqu lool moom ndaw su góor soosule nag kenn xamul lan moo ko dugal foofule ci biir foos boobule kenn xamul itam ban la fa dugg lu ci mënti xew daal jamono ji ñi nga xam ne ñoom ñoo di sapeur pompier génne nañu ab néewam ba bëggoon koo suul foofule ca quartier ba waaye ñi nga xam ne ñoom ñoo fa dëkkee lànk kandaare ci def mbir mu ni mel góor gi le nag dëkk ca Touba Daaru Xuddoos ca quartier bi nga xam ne nii fa la ñu fekk tiis wi le nag di fësal ne quartier bi nag dañ faa nemmee ak ñàkk sécurité gu metti waaye itam ak lëndëm goo xam ne lu ne mënees na faa xew te kenn du ko yëg guddi sax boo xamante ne ku koo jigéen nga wala koo xamante ne ki amuloo fi dara doo fi taxaw ndax li fi daje ci ponkal ci guddi yéeme bi ëpp na ëpp na jéggi na dayoo te amu kenn koo xam ne mën ngaa xam nu mu tudd wala nu mu sant bu guddee daal fi la ñuy dajee ba ay deux heures ci guddi wala trois heures ci guddi muy koñ bii ak koñ ku ñaari koñ ñeenti koñ yëpp ñeenti koñ yëpp bu ci nekk daal ñi fi nekk xaw ma dañuy entraîné xamul lan la ñuy def daal waaye guddi gu nekk bàyyi deux heures guddi ak lum ci mënti doon moom ki nga xam ne moom mooy di autorité yi ñu daal leen di gën a defal ay lamp foofule ca quartier bi di tokkoor ba waaye itam gën a yokk li nga xam ne ni moom moo di kaaraange ga ak lu ci mënti xew askanu daal xudoos ñoom xëy ci tiis ak naqar ci découverte bi nga xam ne nii def nañ ko mu nekk découverte bu macabre. ay lamp am fi ndax bu fi ay làmp amoon xëy na noonu du ñuy demee ndax yeneen yeneen mbedd nga fi yu te taxut ay nit ne fa ndax la tax nit ne fa ay lamp dafaa nekk te am na ñoo xamante ne foo ay lamp nekk duñ fa bari ay tànk waaye fii nag moom li tax ñu bari fay tànk ñàkk ay lamp moo tax ah lii nag moom xam naa ne xëy na yàlla daa dogal mu euh, tey tey jëkk ci rek waaye ragal naa ne bu fi ay lamp amut itam mën naa ñoo dem ba